waaw malheureusement nag maa ngi toog Amérique di déglu candidats yi nga xam ne ñoom ñoo déclaré wu ñi ci bokkoon ci peloton bi ba ñi ci seppi. Mhm. kenn waxu ci loo xam ne kenn aucun de deux côtés ne peut nous tirer de l'affaire. kenn ci ñoom mënuñoo génn ci situation bi Sénégal nekk parce que kenn waxu ko ci. kenn ci ñoom. Amadou Ba pourtant il a promis il a promis de de faire de ce mandat un mandat dédié à la à la jeunesse du pays. mandat dédié à la jeunesse de ce pays dégg nañ ko ci Senghor dégg nañ ko ci Ablaye Wade dégg nañ ko ci Abdou Diouf dégg nañu ko ci Macky Sall. ba tey parce que on a une jeunesse inapte à moitié. Hmm? inaptocratie boobu ñu nekk nit ñi mënuñoo liggéey même boo leen joxee liggéey mënuñoo liggéey parce que préparé wuñu leen ñu pour liggéey euh, Mamadou Awa bu ñu bëggee réew moo xam ne nit ñëpp dañuy jóg dem liggéey il faut ñu teg conditions yi il faut ñu jàngal nit ñi il faut ñu jàngal nit ñi former leen loolu moom mooy li am. moo am